asalaamualeykum ñu ngeen nuyoo te di wax ngeen jégal ñu dañ tardé tey ci meeting bi waaye man yéen ñëpp xam ngeen ne man moom moodu moodu laa dama lay dem liggéey te su ma liggéey yëpp ngoon la waaw soo moo tax dama amoon liggéey boo xam ne mënu ma koo bàyyi moo tax ma tardé tey waaye xam naa ne li ma war a wax yëpp nit ñi wax nañ ko wax nañ ko ba pare wax ji baro la wax ji yëpp baro la especially ñun waa baañul ñun wa Banjul mom, ken amul ben excuse boy warata a taxawal luy hangane tax nga ne du ma sa du ma arama baro. parce que waxtu biñ tolu ni ñun ñep xam nañ ni Banjul daan mel poto poto tilim siwej mbalit mu bari yubari, bari malaria gu bari lopitaan bu fess yoy yeb wañeku na ndik arama baro so ñun wa Banjul li ñu war rek moy sanil arama baro ñun nag ñun mi suñ tok bi li ñoo def rek moy fompa dañoo fompa de arama Barrow bale na ba pare bale na tilim ñun dañoo fompa waaye nag fompa mo dafa am njëriñ lu liggéey rafet rafet su fompa bi setut ken du ko gis so ñun fompa bi ñoo def moy li ñoo def ni di dajé di waxtaan di o nit ñi ndaje bi amna solo waaye liko ko solo moy fexé ba kuy ñëw nga indi walé keena waaw boy ñëw toujours yow kena a sa njëriñ barewu fi saa yuñ ootee saa yuñ ootee fexeel booy ñëw indi waale kenn koo xam ne óor na la dina yokku ci suñ groupe bi te dina njëriñ te <laughs> parce que yokku yokku boobu moo moo ñoo njëriñ waaw man nag suma kaddu du bari lool lii laay wax rek parce que guddi na te kon ka man maa tardé ma wax lu em rek jërë ngeen jëf.